dañ koy daal di teg bët tey combat Boy Niang ak Reug Reug daal dina taxaw avant ñu ñëw su waxtaan bi nan nga gisee bile affiche en tant que nitu làmb. waaw ni nga ko waxee rek làmb moom nit ñi yàlla def naa ci may samay mbir euh, nit ñi ci li may gën a xam waaye bokk na ci li ma gën a tëlee nag. waaw ndax ndax ndax ndax li ma koy waxee rek ñun moom ci wàllum rasaar la ñu gën a xam ci wàllum faj tey jaab ak yooyu noonu. làmb ji tamit dafa ñëw ñu gis ci am nañ ci cër ñu doxal doon na tamit temps boo xam ne loo xam ne suñu lépp dañ koy jël baas ko ci làmb ndax ñun làmb ba làmb nañu ngeen bëggee ñu ci suñu liggéey ci wàllum faj ak lu mën di nit ki mën di yittewoo rek buñ ci déggee ñu dañ ko daan moo tax làmb daal tamit yàlla defee tamit maanaam mooy mbir moo xam ne dugg nañ ci saabaroom feeñ ci suñu mbir ñu ñaan mu gën kaa yokk incha allah waaw bi rek na si beneen domaine bi nga doon man ku ku ku yàgg gis samay vidéo xam ne naka jekk samay mbir li mu gën a baasoo ci wàllum maanaam ay seet ak ay koo xamante ni ay mbiram dafa tëju ñii seen mbir qualifié ñii seen mbir wërsëg demee nii comme ci yu mel laa gën di liggéey ñu bëree bëri sax seen gën mais lamb ji tamit ma ci am cër ma ñëw tamit da ci seq ñoo xamante ñoo rafetlu sama liggéey muy ay mbër liggéey la ma ci ma liggéey leen ci loolu dema nag résultat moo dema nag ba nit ñi gën maa xam ci làmb waaye ci côté yëpp la liggéey ci kàttanu yàlla koo waaw dafa am dafa am mbër yoo xam ne comme kan nga njëkk a feeñ ci làmbam mën naa nekk waaye comme ñi nga njëkk a liggéeyal moom bëri na bëri yoo xam ne moo tax naa kii ak lii a mooy làmb waaw bu fekkee xam nga xam nga wax naa ay làmb naan diwa daan daan diwa daan diwa daan te boobu daw ma ñëw ci géew ak yooyu noonu mm-hmm. waaye gis nañ ne maanaam contre Balla Gaye gis nañ ma mm-hmm. yooyu laa tam ñu jógee ay Ada Fass ay Fils de Balla ay Sa Thiès Reug Reug yooyu noonu daal lañ ma gën a feeñal ci biir arène bi daal mm-hmm. waaw macha amna na solo yakarna euh, bu saké di break rek rek jël si won nañ la nga waxon si bilé combat am ay cadeau ci yëkëti si kérok bu boña di break ki nga xamanteni ni modlo bo Lo boobu maa ngi jàmbaar ma leen nuyuwaat au passage jël si nal aussi nga am li nga wax ci bilé combat modlo nga faralon bu muy break boña boña modlo may ko am dam si kawam. saakees nga faralon bu muy bëreeg rek Reug saakees am dam si kaw rek rek tay ñaari mbeur yi ñu bolé len ñaan yi nga xamanteni ni indi nga mbeur ñu daan len combat boobu Diagne lan nga ma si mën a wax ak tey boo pare woon pour ñaanal kan ngay ñaanal. waaw ah, xam nga d'abord yi njëkk def mooy félicité promoteur bi ndax combat la boo xam ne yombutoon ndax gisoon nañ ma papa yi boo ñaa génn ci benn ma pour boo ñaa bëree ak rëg-rëg mais ñu ko démarché ba loolu tax ndax loolu mooy combat bu neex mhm. te combat boobu ku ku ko taxaw rek sànniwu sa xaalis lu mat a bàyyi xel la mhm. waaw kay waaye day day combat boo xam ne daal ñii ñaan yàlla mu yóbbu ci baax a baax ndax yàlla def na ñoom ñaani bëri yëpp kenn ku ne sa sa sa sa dernier sort ci man da ngaa perte kenn ku sa dernier sort ci man da ngaa ndax gis nañu euh, rëg-rëg bi muy bëree Sa boobu ñëpp xam nañu Sa Thiès lañ ci indiwoon moom nañ ci waajaloon bu baax a baax a baax daj ci lu ne ñëpp doon ñu wax naan mbëri bi ngeen di jël xamoo leen kook mm-hmm. lu ne ñu dem ci saa yàlla yàlla mm-hmm. yàlla yàlla may ñu ci ndam mm-hmm. waaw waaw ah? waaw après maa ngi jégalu après. Mhm. Euh, gis nañu combat boobu. ni ñu ah. moo mën ah, masaan wax rek. Mhm. dama naa ne bàyyi na ba le 5 mars def naa gannaaw suba day am un waaw <laughs> gannaaw suba eh, gannaaw suba waaw. parce que man xewoon na fi. gis nga de daaw ci combat boobu sëñ bi. doyoon doyoon na waar lool de muy eh. combat muy combat boo xam ne dajoon nañ ci ay coono ndax rëg-rëg moom maa wax la ko fii ko la man di wax kuy bëri rëg-rëg. Mm-hmm. di nga pare ci entraînement. Mm-hmm. di nga pare ci mystique. Mm-hmm. rëg-rëg ñaar ñooñu bëri moom benn naa boo bëggee bëri moom da ngay ba du la ëpp doole. dangay fexe tamit ba mystique lu mu indi nga bàcce ko ci boo ko deful loolu doo ko daan moom rek moom xam naa ko ci ndax jëflante am na combat moo xam ne maanaam ñun la ko amale woon ci jëflante ñeen ci ak moom mhm. san nañ ci yàlla ba may ñu da waaye mbër la mu naqaree defar te li ngay defar mën ngaa ñi ànd ak moom di mhm. mhm. te moom li def pour nga yàq ko yombut moom waaw lan moo tax loolu lan moo tax moom bu defee mu jàpp te boo ko defee du gaaw a jàpp waaw dafa moom moom dafa dafa dafa dafa am ñoo xamante mit maanaam li ñuy defal ñu ko ñaan li ñuy defal ñu ci bëri lambatuwuñ ok li nga xam nañ def moom boo dee jëflante moom ay jër ay bitéer yoo xëpp ay xayak di ñëw ci làmb ji simb doonuko da ngay ñemee toog kurus fii nii heure bi ñëpp di nelaw ngay jug di génne say sarax di ko fexe na nga liggéey moom pour jëm ko tënk moom loolu nga koy gañee mais bis boo fi jàppee ne maam ëppoo bis boo ñëwee ëppoo ko doole amoo ci ci ci ñu la téyel kurus wala ci baatin bu leer. Mm-hmm. waxuma doo ko daan mais ay caaxaan du ko daan. waaw. Mm-hmm. lool loolu xam naa ko ci moom. Mm-hmm. bëri bi tamit côté bëri bi yaakaar naa dafa ñàkk a bëri bi. bëri bu salte la yor bërëm kenn mënu ko daj moom rek rek nitug bërikat la ndax koo xamante ni simple danga kaa jël jël ba mujj lim def ci simple gis nañu bi football kii laa ma simple am bi de mosuñu gis ko def ci loolu waaw waaw mujj ko ci génnee mm-hmm. kon ku mel noonu booy bëreek moom mm-hmm. maanaam foog yow mbër mi nga par préparé ñi nga xamante ni ñoo koy jënd ko ñaanal tamit foog ñu bañ gaa foog ñu bañ caa nekk ndax làmb léegi li ko sonal boo gisee léegi sax mbër yu bëri dañuy dem ba ba yéen xamante ni da ngeen di faral di seetlu dañuy woo dañuy faral di woo jotoo lañu mën nga ñu bàyyi message whatsapp ci 76 349 24 99 képp ku ñu jot incha allah rabbi lépp lu aajo ci waaw asalaamaaleykum tey nag ñu ngi ñëw di leen leeral benn càngatu fay coowu yaram bu ñu nee yaram nag waxuñu coow li nga xamante ni nit ki da police wala nit ki da kaa am ak am mbooloo moo bëgg coolool fay ndax bu dee cooloo yi moom def nañ ci ay vidéo ba bëgg ba wax nit ñi ku bëgg a jëfandikoo ak ñun wala ku bëgg a déggante ak ñun fi nga jaar waaye bii coowul yaram buñ ko waxee mooy ki nga xamante ni dangay gis ñoo xam ne yëngu ci ay mbir nga dégg ñaa waa diw kër gis nga tey euh, kër gi jënd wala diw gis nga oto yi mam fee wala diw gis nga ci lim dugg coow noonu day dem ba topp nit ki bi nga xamante ni day dem ba tëj ay dem ba xam ne da ngay gis ne da ngay gis nit koo xam daa dugg ci ab business mu dox loolu nga dem ba jàng déggatoo ba mu nga gis ba jàng mujj presse article yu bëree mel ñu gii nii moo ci moo ci musal nit ñu bëree bëri boo ko jëfandikoo képp koo xamante ni gis nga juróom-ñaari xarit safar yi lay àndal boole ko ak ay laaya arfaan yoo xamante ni koo ko dégg di nga xam ne du ay laaya yoo xam ne ku xam ne laaya jariñ di nga xam ci li muy dox moom juróom-ñaari xal yi ni ngay boole fayee ko gis nga ko bëri waa na ñoo xamante ni ñii jëfandikoo ñi nga xam ne ñi ngi jëflante ak ñun jàngat gi ñu koo xam dañ koy defal yu bëree bëri waaye lii nga xamante ni xal yi fayee na ko mbir mi ci kàttanu la moo xamante ni coow li nekk la koy fayee ba koo xamante ne ba nuñ cee mën nañ cee woo ci 76 bi 349 24 99 ba ci ku ci bëgg a seetlu tamit sa wàllum yaram ak ci saafara lépp ci kàttanu yàlla incha allah bi jërëjëf waaw salaamaaleykum tey moom dañoo am lu ñu bëgg a leeral mooy ci nga xamante ni fu ñu toll daanaka nit ñi duñ leen jubu ku ñu waxal mu war leen seen yaram di diis budd buñ dem mu tëju te fekk ne nit ki dëgg-dëgg aw yaramam day taq yaramu nit ki day taq ba xam ne des fois mooy def lépp lu mu dugg rek mu am ay gàllankoor mu jàppee nit ñi dañ kaa bañ wala nit ñi ay noon moo la am moo tax léegi gis koo xam ne mbir mën a jaxasoo rek mu ne dama bëri noonu fekk na ñu bëri du ay noonu seen yaram mooy taq diis dem ba tëju nit ki yaramam day diis dem ba tëju bu ko defee nag loolu mooy def ay wërsëgam tëju kum juggu dugub nit ñi duñ bëgg a wax ak moom xeeti jànkonte yëpp mu koy jànkonte te fekk dara wër ko dut ba yaram moom setoon ay mbiram ubbeeku loolu nag ñiy tëj seen yaram nag dañ leen bëgg wax ne maam comme liy tëj seen yaram lii nii moo koy dijji lii maa ay xas yu yéeme yoo xamante ni moom la ñu ànd ak xeeti yi yëpp waaw bu ko defee daanaka képp koo xamante ni yàlla def na maam mu jël ko xeeti tëjoom yu mel noonu ak yi koy gàllankoor yu baree bari ci wàllum ëdduna am ci kàttanu yàlla dina dem waaw kay xeeti mos càngat lay doon yoo xamante ni foo ko jëlee incha allah rabbi sëñ bi yëpp dina ci jóg allah nomba gi tamit lay àndal waaw kay nomba gu yéeme la goo xamante ni comme bu gisee ne maam ñu koy bañ dafa bari bu ñu ay turam demee tur yu bëree bëri ay sant lañ ci bu ko defee xeeti ay mbiram dina aarul ak xeeti jafe-jafe gàllankoor yi daan am yu baree baree bëri incha allah bi dina dañ képp koo xam yi ñu maan daan seetlu di ñu bëri duñ ma jot ñu woo 76 有，有，有。